ba tey ñu ngi kër rëg-rëg ki ñu jàkkaar lool moom ñu laaj ko tur ak sant bi kilifa gi maa ngi lay ziar. maa ngi nangu ziar bu wér di delloo ziar. tur bi la. Moustapha Kane. la bokk ak rëg-rëg. man papaam laa man ak papaam ñoo bokk ndey baay. Ah, kon de yow papaam nga. waaw loolu moom am na. yàlla mooy boole nit boole ma ak papaam. Euh, tey defe naa ne gis nga ko ak MMA bi fi mu ci jógee ndam lim si am ak ni ko sénégalais yi dundee yow mi wéy juróom itam defe naa war nga ci mën a wax ak tey retouram Sénégal loo noo ko gisee. waaw di kontaan rek di ko féliciter di féliciter Sénégal gi yëpp parce que bu amee ndam MMA ndam lu mu jëli woon ci bitim réew ndamal Sénégal gi yëpp la kon donc di féliciter sénégalais yëpp di wax ñu gën koo teg loxo gën koo ñaanal parce que. mbiri yàlla suñu borom rek la waaw dañ ko ñaanal rek yàlla baax na. kon koy ñaanal ci MMA bi. waaw koy ñaanal ci MMA bi bu génnee rek bon génn la tul caaroy génn la donc saa bu génnee rek dama naan naka senegal gi yëpp ñaanal parce que Sénégal la génnal. Mhm. Reug Reug ban genre xale la en wax ban genre xale la. dëgër na bopp naqari naa waxal wala gaaw naa xeex wala tàng na xool wala gaaw ta mer yooyu nga wax yëpp nag bu dee dëgg rek laa lay wax mënuma la ko wax ci moom parce que jox na ma cëru pap waaw jox na ma cëru pap wan na ma yar wan na ma teggin wan na ma respect su ma ko nee jàppal mu jàpp su ma ko nee bàyyil mu bàyyi kon donc kooku jox na ma cër daal léegi am na leen loo xam ne faw ma laaj la ko mooy làmb dóor ji ci Sénégal fii mu nga xam ne moo guy gi ñoo ci nekk fan yi guy gi defe naa ne ku ne dégg na li fi mu waxee parce que moom mooy fi mu leen làqu soriwut wax jooju nag li ma ci wax leeral mooy yéen yéen a njëkk a wax ndax seex ma le wax na moom moo ngoom waxoon na. noo ci kaaw guy gi ak rëg rëg man du lu may sori. parce que man damay dem Europe di ñëw guy gi bokk nañ avion man ak moom jógee Madrid waa jëm si Sénégal ne ko guy gi doo ñëw ma jox la sama doom mu nekk sa barrage mu ne ma sa doom ñu toog nii Espagne ba Sénégal di waxtaan ma ne ko Reug Reug laa lay jox mu sa barrage mu ne ma kooku man Balla Gaye Modou Lo ñun ci làmb ji yëpp moo ñu man dañuy sóob nii rek. guy gi la wax lii. barki Seydina Mouhamed. Ah, waaye yow mii. ñoo toog nii ci seize avion yi ñoo toog maa moom Espagne ba fii. guy gi moom ma wax lii ci gémmañam ci sama nopp mu jël numéro am jox ma ne ma kooku moo ñu man ñun ñëpp moytul xale yi naan damaa bëgg teral sama yaay balaa ñuy ñëw ci làmba ji ma bàyyi làmba guy gi moom ma wax lii ci gémmañam sama nopp kon yeneen yi ñuy wax nii ci réseaux sociaux yeeg télévision yeeg guy gi man dama naan combat am ak Reug ci guy gi am lii xam bu may conseillé ci combat am ak lu ma koy conseillé wax ji muy wax ci télé yeeg réseaux sociaux yi sax naan hmm. waaw parce que loolu du combat Sénégal gépp ko dégg micro guy gi rëg-rëg la lay wax. yéen mbaa du ngeen xeeb xel ma lak seen dagg rëg-rëg mas nga kaa gis mu xeeb mbër ci làmb. yow da nga ne du combat. dama ne bu ñu waxante dëgg te yàlla rek tax xeebuñu ko nit la mbër la mais combat guy gi rëg-rëg non loolu jarul ñu siy débat ci ay réseaux sociaux ay télé parce que qualité yi qualité yi ñuy wax. guy gi limal ma benn yu bëri def leen a stoppé. man mbër mu mën a bëree mën a xeex la guy gi daan. bu yàggul kay daan na fi Siteu seen seen genn wàll daan na Ama Baldé. sa daan na Tyson 2. déglu ma guy gi ñoo waaw guy gi ñooñu ngay wax ñépp day wéeru seen kaw ñu di bëre di bëre ba vidéo ñooñu nga wax ne euh, kii daan na leen guy gi daan na leen ku ci nekk àgg nga guy gi foo xam ne nii bu doon rëg-rëg làmba ja jeex na hmm. àgg na guy gi foo xam ne nii. bu doon rëg rek làmba ji jeex na Ama Baldé àgg na guy gi foo xam ne nii bu doon rëg rek làmba ji jeex na ñu waxante dëgg Sénégal bu ñu naxante quoi. mais yow bi la rëg rëg di wax bi la guy wax lu ci avion bi nga yaakaar nekkul ay rek. nekkut ay nax man damaa xam seen i man maa leen dàq bëre ñoom ñaar ñëpp. rëg rëg guy gi. waaw nekkul ay nekkul ay. foo teg lii. nekkul ay caaxaan. dama kaa doon na man nekkul ay caaxaan. mais doon na ko est-ce que jàng ko gën te mbappati Pikine yëpp dem naa fa jëli fa saako ceeb ba tàyyi avant may tukki hmm. waaw buy uh, rëg-rëg mi combat am yëpp maa koy yóbbu Ousmane jóob mbër caaro yi combat am yëpp maa ko doon yóbbu sama oto kon li ma lay xam naa ci lu leer nañ dama daan bëree mbappat ba ñuy julli fajar may soog a tëdd si avant may tukki. mais yéen parce parce parce que man dama gis lenn xam nga guy gi lu man lu la waay waxati waxati xam ne moom bu décidé ba ñëw ci làmb moom làmb jooja man ngeen di bëre ba fajar. seetaan nga guy gi booy ñaa bu baax. dama kaa yërëm sax combat boobu ma ko seetaanee. yow yi mu bi mu daanu nga tànn. mënul bëre mënul xeex. tànnal ko ku du mbër wax ma meneen mbër damaa bëgg nga wax ma guy gi man mbër la daan kele bëre. mais Ama Balde mi man nga koo génne ci làmb. Ama Balde moo bëree ba daanu seetaanoo combat bi teg leen combat bi ngeen seetaan ko Ama moo bëree bëree bëree bëree ba daanu fan la ko daanee man damay bëre moo tax sama wee sax si jàppee damay bëre kon man yooyu jaaxal ma ñi mën la bëre xamuñu bëre ñoom la guy gi wax yooyu mu jaaxal leen mais pas man. man du kan mooy sama baay papa Kane lu baax li ma la wax Papa Kane boo dem fii senegal dóor na fa seen mbër mu daan Modou Kane mooy sama baay yenn yi nag du ma ci àgg parce que Modou Kane mag la am na yoo xam damaa xam ci làmb lu bëri man mii ngay waxal nii. kon daal bu combat ngeen ci tiit. non tiituma tiital ñu boole kaag yaawu jaar day fo. Reug Reug koo gis ñu ne am na ci tolof tolof Reug Reug moo la ëpp doole moo la man moo la ëpp fuuf combat boobu boo ko joxee Reug Reug damay tiit. mbër mi gën a gàtta ci làmba ji gën a tuuti ci làmba ji boo ko joxee rëg rek man dama naan sama xel dal xam nga kañ sama xel di dal nga gudd rëy ñu jox la rëg rek mais waxu guy gi boobu mu la waxoon ci avion ba ne rëg rëg moo man ñoom Modou Lo ak ñoom Balla Gaye ak yéen ñëpp gëm nga ko barki Seydina Mouhamed laa la giñal boo leen tëggaloon mbappat nga rangale leen ci génn guddi rek rek daan leen ñoom ñëpp Sénégal yéen xam ngeen ko yéen communicateurs yi sax xam ngeen ko ñun mënuñoo xam loolu rangaleel Ama Baldé guy gi Modou Lo Balla Gaye si génn guddi génn tàkkusaan ñu takka ngemba man maa la wax loolu. Reug daan leen ñoom ñëpp même pas une heure de temps man maa ko wax. ñu nga fi wax lan la ëpp merci. moo leen dàq bëre moo la ëpp technique Reug kele boo xalaat ci àdduna daan na ci mbër. du dara nag moo tax ma la koy wax. Balla Gaye ne jeexal nañ téere yi ci bëri. waaw jeexal nañ téere yi mbër lañ mën nañoo bëre trop mais yàlla moom mooy dogal ay jamonoom siècle bu ne ak ku yàlla di wàccee nañu ko nangu. mais dañoo jeexalagut. non déglu ma Balla Gaye mës naa wax Yékini nekk buur bu xamee li kay folli du ko neex seetaan ngeen action boobu kii loolu lay wax mbër yooyu buur bu ci xam li lay folli du la neex. da nga xalaat yow sax bu ma la déggee folle koog Balla ak ay ñoom Modou Lo foofu la jëm si. angoon ci benn guddi benn tàkkusaan mu folli leen dégloo déggoo li ma déglu bu baax li ma lay wax bu ñu rangoon ci genn tàkkusaan waxuma la nga tëggal Balla Gaye combat Reug Reug Modou Lo nga rangale leen ci genn tàkkusaan ci tournoi mu daaneel la grand xamal la laa lay dolli foofu euh, boo demee ba ci football bi sax loolu am na ci année bu ne siècle bu ne sunu boroom day am kum fi teg nañ ko nangu nañ nangu loolu. nga kii li li muy def nii du moom sunu borom moo ko def ci moom xam nga kii buñ koy pousse muy dem lan la ñuy wax. mbërëm yàlla mi. ngeen may wax laaj. dafay jóg. non jógu fi mu ngi bëre ba léegi mais Xaadim Njaay sax mu ngi bëree ba léegi. Xaadim Njaay 1 mu ngi bëre ba léegi. Balla la mënoon tey la ko gën a mën. Xaadim Njaay 1 la mënoon démb tey la ko gën a mën. Balla ngi engagé Bombardier. yow déggoo li ma la xanaa yow eh, amalab dégg-dégg yow. waxi maa ngi lay dégg. waxin waxin déggin la laaj. waaw mbër mu yor licence am di bëree. <laughs> nga bëgg ko fee jëlewu ma ko fi dama ne la waxin déggin la laaj déggoo Balla Gaye ba mu ne Yékini mbër bu xamee li koy folli buur bu xamee li koy folli du ko neex. nit ñi Balla Gaye da dul buuru làmb ji buur bi. buur bi moom mot loola. buur bi Modou Lo la. waaw mooy roi moom laa lay moo tax ma ne la Modou Lo ci boppam boo ko yeewoon ci kawam lal ne ko yàgg rëg-rëg cent deux cent millions yi du ko jël. deux cent millions nga wax. barki Seydina Mohamed du ko jël. Ah, Modou Lo Modou Lo Modou Lo Modou Lo neexul bagaas de. yow xanaa déggoo ma dama ne la ñoom dañuy wax par journée par journée dama ne wax leen genn saan wala nga tëggal leen ab euh, gala de lutte ñoom ñooñu ñoom nga ne rëg-rëg bokk na ñoom ñëpp ñu bàyyi fii laa la ko waxee. am na solo Lamine. rek ginnaaw bi nga arrivé aéroport ñëw nga dugg si koñ bi nuyu waa koñ beeg yooyu euh, léegi nag xam naa da ngay sant ak gërëm mais man balaa ngay sant ak gërëm sa papa dafa am wax bu doy waar bu mu wax sa papa ji toog sa rakku papa sa wax papa ji daal ni mu la wóoloo man sax man dafa maa xaw a tiital man waxam ji loo ci xam. waa mais père daa xam daa xam li nekk si man rek xam nga xam nga moom ku jur sa doom moom yow yaay xam li nekk si moom mm-hmm. kon dafa xam la nekk si man moo tam mu waxee noonu. mais ñi mu tudd dafa tudd Modou loo Balla Gaye Ama Baldé ñooñu la tudd. waaw mais moom mooy li ma la wax. daa xam li nekk si doomam moo tax. you dafa xam lu nekk si doomam moo tax mu waxee noonu. te li mu ko confirmer. du benn yoon du ñaari yoon laa ko wax. Hmm. you know doonul benn yoon doonul ñaari yoon laa ko loolu avant mu koy wax man wax naa ko. Hmm. waaw xëy na dafa jàppaat samay wax rek wax ka xëy na xam na li nekk si man. Sénégalais yi xamaguñu lu nekk si man à 100 pour cent foofu laay waxee quoi mais avant tout dañuy sant yàlla. mais balaa ngay santaat damay ñëw sa non di nga gërëm sa manager ngi nii toog Paala Diop. man dinaa ñëw si Paala. il faut ma gërëm fi ma nekkoon muy comme ku si mel ni Père Alsane maa ngi ñaanal yàlla suñu borom defal ka jàmm moo xam nu mu bëgg yàlla na ko suñu borom defal ak soxnaam as Touré maa ngi koy ñaanal moom tamit yàlla suñu borom defal ka jàmm gis naa ni ñu ma taxawoo ak ay doomam Mohamed papa Ami maa ngi leen di ñaanal daal yal na leen yàlla defal jàmm ak ñoom Omar Ñang ñoom ñëpp maa ngi leen di ñaanal ak Omar Fall maa ngi leen di ñaanal yàlla suñu borom defal leen jàmm gis naa bu ma ñëwee niñ ma teeroo bi ma demee gañe ah, dem Singapour bu ma ñëwee gañe ba pare dañ ma defal fête foofu États-Unis Omar kon aw ma fayam maa ngi leen di ñaanal yàlla suñu borom defal leen jàmm waaw père nag sama per la dégg nga si biir waxam nee na doonul entre manager doonu ka doomam laa waaw kon nag ni mu waxee rek la mën a waxee ndax man doomam laa. Hmm. moom ban genre manager la en tant que koo xam ne yàgg nga yoor mbër di ko engagé ban genre manager la. waaw manager mana ah, man doon na manager bu maanaam ah, doon na manager boo xam ne tey jii du ànd ak mbër loo xam ne du dëgg. su ay caaxaan. waaw te tey jii foo toll dalay oo di la laaj yaa ngi ci entraînement yi nangam nangam loolu da see baax. xam nga ma la boo yoree sa mbër mu tuuti mu ngi ku makka day am solo nga koy oo di ko nemmeeku di xam si lan la nekk isa moom la ñu expliqué loolu dafa am solo si diggante mbër ak manager waaw man dama koy ñaanal yàlla suñu borom dafal ko jàmm waaw ak soxnaam ak ay doomam yëpp. Ah, dama jël magam bërki dem Mansour Diop numéro un mu am lu mu metti lu ci mbër yu mag yi nga xam ne dañu wéradi ba ñoom mbay gi ñoom duubalees mm-hmm. booy bambara yàlla na ko yàlla yërëm génn àddina mu jàpp ne état daf leen war a jàppale yegg na ba ci sax ne yéen ñi nga xam ne yéen ay défendre équipe nationale bu leen ko defati parce que li tax nee na jaru ko est-ce que waxam jooju mu wax yow noo ko gisee moom man su jóob numéro un waa xam nga tey jii mooy li may wax rek gis nga sunu papa sunu maam yi sax tey jii ñoom ñoo tax tey làmb egsi fii mu egsi mun waxee te dëgg rek te yàlla rek tax kon état war na leen a jàppale ndax suñu papa yi dañuy feebar boo doonee mag rek feebar la kon état dañu war a di leen maanaam di leen. ndax quoi ndax ak ba si ñun ñi acteurs yi. ku su mel ni ñoom Balla Gaye Modou Lo Tapha Tine ah, ah Ama Baldé Guy gi Boy Niang ñëpp dañoo war a jàppale mag ñi ndax ñëpp xanaa déggoo ñi mën limal ñi. sama ma la expliqué ñëpp dañoo war a ñëw jàppale mag ñi wala lenn ila euh, giri giri mooy association des lutteurs. moo leen jiite maanaam moo ñu jiite. mais normalement jiite boobu normalement am na loo xam ne tey dañ ko war a def pour sunu mag ñi bu ñu état ndax ñun juuxu nañ bay bëgg a dee ci état état faalewu ñu nañ waxante dëgg kon ñun suñ nañ jël suñuy moyen ñu jàppale suñuy papa yooyu ak suñuy maam. wasalaam quoi. sa digganteeg ñooñu daa mel dafa di tax temps yi di yàgg ñoom Girek ñoom Balla gaa yooyu lu waral taxaay bi. non ak ñoom Modou Lo ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi. sport la sport bu boolewul war ta xàjjale. te ay ñun ñëpp ay senegal lañ ndam li génnul senegal kon ngalawaay lu si waay di def rek na rafet ndax ñun ñoo bokku nday ñoo bokku baay. est-ce que nekkoo di leen baab nii di xam nga di teg xel xam nga yow itam mooy loolu de. bañ gaa yi jiitu la àngal ba. non non gars yi ma leen te xel ndax ñooñu on bientôt dañ fiy juge ñun ñooy ñëw kon amul teg xel. kay jaxasoo nga ak ñoom fi mu ne noo non xam nga boo déggee ma la bientôt ñoom dañ fiy jóge ñoom boo xoolee tey mënuñu ñoo bëriwaat dix ans n'est-ce pas man dese naa lépp dix ans kon looloo ta ma la bientôt ñoom dañ fiy jóge waaw. mais coow yi nga gis ci mbër yi maa la wax ci Sénégal ci koñ yi rawatina mën nañ sax citer benn secteur bu mel ni géejawaay bëri na werante trop te géejawaay ak caaro yi benn dëkk la sa sax benn dëkk la yow loolu loo ciy wax loo leen di wax comme message waaw xam nga Sénégal benn dëkk la kenn mënu kaa xar ñaar gis nga gox bu amee maanaam problème ñi doon acteur gox boobu ñoo war a jug bokku ndey bokku baay defaraat gox bi ñi si féete mag ñu féete mag laa la wax jàpp maanaam aar seeni rak yërëm leen aar leen rak yi tamit déggal leen isa moom ma la expliqué mais sport la war tay xajale waaw loolu laa si wax. dafa doy waar trop mais nag mais nag ñu doon mag ñoom ñooy comprendre xale yi rek ndax xale yi seen na nañu waxee mais mag ñi tamit bu leen topp seen fogu ñoom tamit nda bul leen toppee seen fogu rek dinañ wax loo xam ne bëgguñu ko woon a wax. lambi huis clos ànd nga ci bëree sans kenn ñëw fa. huis clos ah man lan laa jógee nii. huis clos laa jógee yow de laa jógee min naa nga. Ah. moom du la def dara yow. man du ma def dara ndax foofu laa jógee. kon yaa guy gi fi mu ne huis clos ci dàq. noo xanaa déggoo ma. non du dàq si moom. mais dina dàq si man. <laughs> mais dinaa la laaj lenn ci VIP ma jëkki ci la roi des arènes Modou Lo Modou Lo lan moo la gën a neex ci moom. Moodu lu ma gën a neex si moom mm, am na jom am na fula loolu neex neex na ma si moom. Balla Gaye lu gën a neex si moom. Balla Gaye ma gën a neex si moom euh, ku muy ku mu gis rek da koy yéene comme boppam loolu waaw xool bay rafet moo tax loolu neex na ma si moom. Bombardier. Bombardier kooku moom kenn la si mbër yi hmm. <laughs> waaw kooku moom borom xol bu rafet la waaw yéenewul kenn lu bon. sa adversaire guy gi. borom xol bu baax la lu muy wax si làmmañ ñu lay am mais xol bi boo ko ibbee xol bu rafet nga si fekk. bu dee Eumeu Sène. ah Eumeu Sène moom ñëpp xam nañ Eumeu moom kooku kenn la moom tamit ndax boo ko xoolee foo ko fekkee day kaf di ree boo toogee moom si ngay xam ne kii nit la waaw. Giri seen président. waaw Giri kooku moom li ma lay wax rek gars yi dañ koy yab ndeysaan dañ koy yab gis nga Eumeu Sène lu mu koy wax. gis nga monsieur lim nga naan nga naan nga ni ah <laughs> naan nga kii kan moom tamit ñu ngi koy ziar di nuyu ah moom tamit nit ku baax la ndax ah, bi association yi des lutteurs amee oo na bi ñuy jox ah, ministre de la santé oo na ma ma dem jox am joxe li ma am si njëkk ak teraanga moom tamit mu rafetlu rafetlu ko waaw mais borom baax la daal. am na solo Tafatine tamit faw ma laaj la. ci waaw Tafatine tamit Baye Fall la. yee Baye Fall la. ndax euh, maanaam comme li may wax si kii nu mu tuddati euh, li may wax si Modou moom laay wax si moom. waaw dafa am fulla am jom. bañ defet loolu neex na ma si moom Tafatine loolu neex na ma si moom. bu dee Lac de Guiers 2 la. waaw Lac de Guiers 2 moom am na fulla. am na fulla bañ defet tamit boole si. yaay fulla ji neex na ma trop si moom yaay. Mhm. Mhm. ñi ci des moom muy Ama Boy Niang. waaw ñooñu moom ay fuggu xale nañ yor. waaw dañ neex nañ ma mhm. neex nañ ma ndax fuggu xale nañ yor. nag Ama tamit borom baax la. Boy Niang borom baax la Ama tamit borom baax la. ndax uh, Ama daje nañ ci dini comme ni mu la ko waxee woon. daje nañ ci dini kon kooku maanaam te bi ma ko nuyoo man bi ma ko nuyoo <laughs> damaa kuul sama entraînement pourtant moom moo ñëw fekk ma fa kon loolu. yëg-yëg la. bu wax ma fa loo xam ne tey jii tey ji loolu duma ma ko fàtte mu mu ne ma kër gu ne daa war a am champion sunu papa yi mun ma sa papa papa kan lu mu fi def yow da ngaa war a yor relève bi man tey mokk la même chose si papam waaw. ci affaire ah. may posé question li nga ma posé question laa lay mais ah. bu ñuy wax ma ak ah. beneen journaliste toog nekk sa ginnaaw di la. bëri sama patron yow yow sa patron. yow bës du sa patron. yaa ngi liiru yaa patron de bës <laughs> ah. mi. waaw ah. war a sant gërëm. yow est-ce que yow doo ko sax. non si yow bës bokk na si. doo déglu xam nga tax bës bi muy doog a ñëw. waaw fekk may def fooy falaam si simple. <laughs> ndeysaan mu takkaale sama kaw. mais loolu lépp maanaam lu war a am la. yàlla suñu borom moom moo ko def xam nga expliqué mais loolu du ma wax ni man la yàlla suñu borom moom moo ñu boole mu doon nit ku baax nag. wax dëgg yàlla nag waaw bar sëñ Bamba mu doon nit ku baax. muy def kale may def kale mm-hmm. ba ñuy naaw su ko weer ma xam ne kii dafa mën a bëri. waaw daa mën a Maama Lamine tamit ci tàkkindaay la bokk. waaw Maama Lamine baaxul Maama Lamine. Boxar naa moo tëgg ko mbaam moom ak mm. euh, Kale mu tuddati. waaw Maama Lamine waaw. borom baax la nag Ndeysaan moom sama waay la Maama Lamine maa ngi koy ziar. waaw avant muy jël combat damaa woo ma ne ko hee. mu ne ma Garga 2 lañ may wax. ak beneen mbër. ma ne ko non mbër mi boo ko jëlee loolu yi jëlal ki gën mi gën a diis mu ne ma ah loolu nga ma ne ko ah loolu laa. maanaam ma bu leer bu lenn ma yow mënoo jël Garga 2 daan bu ko jël mun ma yow na sa xel daan ma ne ko kon jéem a mu jël ko kon yaa ko conseil mu jël Garga 2 waaw ndax nit ki da ngay def dangay ngay daan koo xam ne tey ji boo ko daanee dañ xam ne ni ñii booy yi duma ma seen morom te tey ji bu génnee si Garga 2 est que di nga ko boolewaat ay booy mën na ci ak yéen bien sûr ndax ñun moom dañ ciy tax rib am na ko sonal dëkk bi temps yi gàddu bës bi yéen ñii sax nangu na seen bës muy liiru jaan xam nga liiru jaan grand liiru non xam naa ko kay. bu hmm. ñu eh, kilifa waaw. Euh, fukki pénc ak ñaar yi. lébu yi waaw lébu yi maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. Hmm. waaw gis naa niñ ma taxawoo. di sant waa Caalaan. Hmm. John Ñoojoor Falia. Baasaar Baasul. ah Mar Sulu Mar Faafaxo. Euh, Ndanga Nangan Samb. waa Kaolack waa Mbeelengij waa Ganjaay. maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ak waa Mbour ah waa Joal awma seen fay ndax gis nañ ñu may taxawoo quoi ñoo ñu ma leen limal ñëpp surtout waa Thialam dañuy sonn si man ak waa Mbeelengi awma seen fay maa ngi leen di ñaanal yàlla suñu borom dëkk yooyu def ko mu gënal naa si barki Seydina Mohamed di sant di sant waa diaspora bi